jërë ngeen jëf mbokku internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax tey jii nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Grand Yoff nakar ak tiis bi nga xamante ni moom moo fi am niki démb muy dal bi ngeen di seen sama ginnaaw moom fi daal di ah, daanu faataale xale boo xamante ni ay atam ngi toll ci trois ans loolu nag sabab fi suñu ay tànk comme ni ñu koy defee saa su nekk bu ñu gisee information li ñuy njëkk a def rek mooy dem ci ñi nga xamante ni moo di famille bi gisee ak ñoom tàllal leen micro bu ko defee ñu indil ñu ay leeral ci mbir moom mu naka rek la demee ndax xele boobu moo ci ñàkk bakkanam ndax am na ñeneen ñu ci am ay gaañu gaañu dal bi ban heure la daanook ban heure la sapeur ñëw loolu lépp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jot a fekkee ñu ci jox ay leeral ci mbir mi exactement rek naka la demee laata loolu rek ñaanal xele bi nga xam ne moo fi bàyyeekoo yàlla yërëm ko xare ko aljanay firdawsi si famu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jógee damay giseek ñi nga xam ne ñoo jegee famille bi rek wala ñi nga xam ne ñoo fekkee bi dal bi di daanu bu ko defee ñu indil ñu ay explication ci mbir moom mu naka la demee kilifa gi maa ngi lay nuyu. waa maa ngi lay sant di la bi naka la. Seydou Seye. d'accord Seydou gannaaw ba ñu leen masawoo jaale leen ci tiis bi nga xamante ni moo daal dal ci seen kaw ndax mën nga ñëwalaatal ci information ci mbir mi naka rek la demee. waaw xam nga tamit lu ñu du ñu jot a fekkee moom amaana ñu dañu xaw a tardé mais lu ñu jot a fekkee moom fekk nañ suñu mag bu jigéen ak suñuy raq ñu tëdd ñooñu lañ fekkee ñu sauvé leen ci mais à part ça ñun 14 heures ba ba tey ñu ngi fi. sapeur yéex na ñëw tamit parce que moom lañ jàppoon moo si gënoon sonn fekk ndekete am na xale bu laaxatu ci biir ay 19 heures dañ ko yëg waaw moo tax tiis boobu moom daf ñu métti trop trop waaw dafa métti trop waaw. dama ci ay wax nga ne dafa am seen mag bu jigéen bu fi nekkoon kon nekkul kenn rek moom moo abala daal bi daanu ci kawam. moom décédé wul moom ndigg bi bi lay jàmbat. waaw ak suñu benn raq tamit boo xamante handicapé la ak yeneen booy yu ndaw yu toogoon si suuf waaw. xanaa kër gi dafa màgget wala. waaw parce màgget na nag parce que waroon nañ génn bu yàgg mais xam nga mag moom pour génne ko ci kër day xaw a métti moo taxoon nag. ci ñàkk bakkanam ñaata at la am. quatre war a toll waaw. kon daal sapeur dafa yéex a ñëw ba dix muy sapeur ba muy ñëw parce que ñun suñu sœur bi lañ jàppoon moom rek moom rek moo amoon blessé bu garaaw ñun xale bi gisuñu ko dernier mois lañ ko gis moo tax waaw. xale bi yàgg gi mu ci suuf moo tax mu nàkk ñàkk waaw amaana sax même bu yàggoon suuf si parce que xale bu am quatre ans xeer yu toll ni war si kawam même buñ teel ñëw sax xëy na foofu la yàlla tuddam bësam rek waaw fii la fii non fii la ñàkkee ba kanam waaw ah, xale bu am xale bu yaru xale bu ndaw quatre ans koo xamante bëgg ñëpp du daw nit waaw loolu lañ mën a wax ci moom xale bu yaru bëgg nit ñi xaaru mbir yu mel nii saa bu ñëwee rek day faat bakkan wala mu indi nit ñoo xamante ni am nañ ci ay gaañu gaañu lan ngay lancer message ci ñi nga xamante ni dañuy nekk ci ay batiment yoo xam ne dañu xaw a màgget. ah ñu jël ñu jël suñuy matuwaay rek. parce que bu la leeree bâtiment moom am délai quoi dafa am am na délai dëgg yàlla ñu jël suñuy matuwaay rek waaw parce que tamit fagaroo gën faju quoi waaw. merci si ok soxna si merci waay jërëjëf. kilifa gi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen nuyu di leen sant. naka la laa tudd. Faye ñu gis ne yow nag sa kër moo jàkkaarloo ak fi nga xam ne dal bi moom moo fi daal di daanu lan nga ñu mën a jox ci information ci dinga xam ne moom moo fi xewoon ni ki démb. waa démb dama ñëw wàcc ñu woo ma ne ma am na sunu dëkkandoo yoo xam ne dal bi dafa wàcc bi ma ñëwee xam naa yéex a aussi dama liggéeyoon ñoo ñu constaté dañu évacué sama sama doom si la bokk waaw sama ñaari doom si la bokk. lañ am. kooku am na sept ans ku keneen kii war na am ay trente cinq ans yooyu ñam ñaari doom ok sama dëkkandoo yi bi papam ñooy liggéeyandoo mu gaañu am na booy bi am na quatre ans waaw bi sapeur yi ñëwee ñu évacuer affaire bi ndekete am na benn booy bu des si biir mooy booy bi gaañu waaye gëj naa ba nga ñëwee ñu ne la say doom ci lañ bokk ba nga ñëwee jot nga gisanteeg sa doom yi. jot naa gisanteeg ñoom après ñu dem hôpital xool ñu dem CTO ñenn ñuy bàyyiwaat leen les premiers soins mais keneen ki dafa xaw sonn fi mu nii ramatulaay. sa doom bu mag bi sama doom bu mag bi waaw mu ngi dem ak ñëw nag mu dem ñu ne ko place amul ak yooyu waaw loolu laa ci delluwaat na sax tey ci suba. Hmm. moom gaañu gaañoom bi fan la dafa ci loxo bi hmm, ci baat bi la. parce que da jaay foofu à côté waaye fi jaay si suufu affaire bi suufu dal bi dal bi ñëw dal ci kawam ñu nekkoo ko fii amul place kon jamono yi maanaam euh, métit lay doxaale. lay doxaale mu ngi dem di ñëw mais normalement dans les kii ak nu mu munti demee dañ ko fa waroon tëye am na yeneen mantitu yoo xam ne xajul si gàlle waaye xajul si kër. bi mu demee jot dañ ko jox ay garab dañ ko pikiir luñ ko defal. dañ ko defaat scanner joxaat ko ay garab il que encore bi mu demee ñëw nii léegi ndigal yi da doon métti ak faar yi waaye mu delluwaat encore mun na am ngoon si ni mu defaat demaat dellu mais téye woon ko moo doon mu mun ci demee même bu dee hôpital ko téye ñu transféré fi ak yooyu mais waratul dellu si kër gi ñu di ko seetaan waaye waaye ku ñëw di ko xool muy dem dafa métti loolu mu ngi souffrir actuellement ak douleur am yi. beneen doomu frère la. bon def nañ rajo scanner ak yooyu gisuñu dara à part tibia bi moo am xoosu xoosu ak tiitaange waaye. daal bi ban heure la daanu. bon ay deux heures lañ ma woo wax ma ko deux heures heure añ. waaye mënoon na gën a garaaw nag sant yàlla ndogal mais munoon na gën a garaaw aussi waa kër gi dafa am ñu fi dëkkoon wala kenn dëkku ci woon. am ñu fi dëkkoon ñëpp génn nañ la police est venue des ko si ñëw na tëj nañ kër gi waaw pour le moment ñoom ñoo ci des quoi. ñoom dañ doon waaj pour toj ko vraiment ndogal am na mais euh, ñoom dañ doon préparer pour dem aussi. préparer pour toj kër bi kër gi moom franchement parler ah ñoo jàkkaarloo ko war ndogal du ñëw. Mm. sa doom boobu moom gannaaw ba mu ñëwee ci kër gi naka lay dundee ak li nga xamante ni moo di métit bi nga xam ne moom la àndal. métit bi yaayam géré man ma géré mu dem hôpital moom premier jour bi lañ ko génnee mais fi mu ne mu ngi géré nii quoi maa ngi koy laaj chaque fois ndax yëg na ay métit mais ça va sant yàlla. non sama taaw sama doomu grand frère la sama doomu grand frère la. boo amoon message booy lancé jëmale ko ci ñi nga xamante ni tamit am nañu bâtiment yu mel nii te saabu daanoo rek ñu gis que ne dafay def ay njombe wala mu daal di faat bakkan aussi. Mm. waaw mais côté boobu côté état daf koy jël parce que mooy tamit dafa metti Sénégal fii il faut benn côté état bi jël ses responsabilités xool ba man mi sama kër day waaj a daanu sama kër y a des fissures yàgg yooyu fii laa dëkk nous sommes en danger mais état bi war na mun jël benn responsabilité euh, dimbal. sociale am ji parce que moyens yi dafa métien fii c'est très dur. booy bëgg na ah. sa kër mu ngi waaj a daanu ndax yaa ngi def ay démarches pour génn wala. mos naa def démarche bon fi xëy na jël kër gi yóbbu ko garantie à la banque ñu mun ma jàppale ma defaraat waaye. kon ni nga ci dëkkee nii risque la ak say njaboot aussi. risque la mais tous les bon je fais la maçonnerie xam naa fu muy gravé aussi man lépp lu ñu war a dindi dama koy dindi dama koy dindi di xaar nag les moyens maa ngi ci. maa ngi ci maa ngi ciy def ay démarches pour am lu mu ko defaree. aw ma solution. aw ma solution mais maa ngi wut solution waaye. kon daal nekk nii jot nañu jàppale la ndax sa kër gi fu mu nekk nii ku ko xool xam ne aussi euh, mu ngi waaj a daanu comme ni nga ko waxee te xale yi sa njaboot gi yëpp a ngi si biir. waaw sama njaboot ngi fii mais lépp li nga xam ne ñoroon na wala war na daanu daanal naa ko mais maa ngi xaar nga ñaanal ma aussi. xéewal am ñu defar ko waaw yàlla baax na. merci beaucoup. Euh, ok merci maa ngi lay di la sant ok jaajëf. ñu ngi leen di fay. tur bi naka la. Saliou. Euh, gannaaw ba ma jotee information bi ma fi ñëwee tamit ñu ne ma yaa jot a fekkee bi mbir yi nga xamante ni moom moo euh, am xewee ndax mën nga ñu jox ay information wala sax ay leeral ci li nga xam ne moom moo xew. waaw li si jot a fekkee daal moom bëri na te lépp lu ñu si mën a wax mooy loolu ci boo buggee dégg dëgg rek affaire yi métti na. métti na trop foogoon nattu wees noo fa waaw ñun bu ñu nekkee suñu kër ñun ak ñoom ñoo jëloo mais ñun fii la defee lépp parce que koñ bi perex si benn la ñun ñi ngay gis ni perex si ñëpp benn lañ ñooy ànd guddeeg bëccëg minuit moo ñuy génnee fii buntu kër gi mu daanoo nag xëy na yàlla moo ñëw fa la ñuy avant muy am ci minuit une heure la ñu génnee la ñu jógee foofu dañuy tasaaroo presque chaque jour mais lii nii bu mu amee bëreet ñun ñu jóg taw ñëw fekkee ko gars yi dimbali nañ ñu waa ko booy jàpp nañ ci ñi fa nekk ñëpp ñëw nañu génne profito génnee nit ñi woo nañ sapeur ñëw na def na liggéeyam ci ni ko waree mais seen bi mujjee am après moo nax ñëpp même sapeur yi loolu ñoom mënuñ ko gëm ndax da leen nax. man seen parce que affaire bi amee ba lépp jeex. benn dal bu nekkoon ci côté bi benn dal bu mujjoon ci beneen el bi ndekete fi mu tëdd benn bébé mi ngi fa bu trois ans et demi quatre ans joojo Sagna yaayam moom am na ci mag ci ñi gaañu ba ñu yóbbu leen hôpital yaayam dem na hôpital boobu affaire bi muy am ay une heure et demie deux heures yaayam dem après hôpital bi mu ñibbisee ay 5 heures 5 heures mais bi muy dem hôpital xamul ne moom doomam tamit bi am 3 ans dal bi daanu na ci kawam ba mu ci suuf. koñ bi laa la wax waxuma la yaayam de koñ bi ku la mënti wax loolu noonu ne am na amul yaayam ak ñun ak ñëpp kenn mënul jàpp ni fii dal bi tëdd bébé ngi fi. xam nga loolu dafa garaaw sapeur yi ñëw ba yëkkati kay ni xool xeer yi kay ba constaté ba dem ñoom xam nañ ni nice ñi war a jël yëpp yóbbu nañ leen ñun ñi ngi toog bougé wuñu rafuñu di xaar résultat ñuy wootante ak ñun ak ñu dem hôpital ba yaayam bi mu ñëwee di yaay seen bopp moo doon defal ne non ñu ngi leen di ñu ngi leen di defar normal nañ ko boobu yaayam xelam kon si yaay ji xel dal na ba mu ñëw mi ngi alul bébé bi gaañu am na rakk mi ngi toog en face fi mu tëdd di nampal ku ndaw ki jékki-jékki nag xel bi ñëw ci doom ji ku ndaw ki mu laajte. ñu wër ko ba sonn gisuñu ko mais léegi am benn femme bu jóge ci biir kër gi ne maam ji nee na li muy sentir moom neexu ko nañu jëkkati xeer yi ñu xool loolu moo ànd waral ñuy jëkkati waat xeer yi jaxase foofu ba ñuy yëkkati dal bi rek fekk fa bébé bi ñun man mi yëkkati ñun ñu yëkkati xeer yi fekk fa bébé bi kenn mënatul tee sa bopp loolu moo indiwaat gën indi beneen naqar bu ñu mun a wax lu ñu ko mun a waxee. mais à peu près ñaata heure la bébé bi def ci suuf dal bi nekk ci kaw diggante bi affaire bi amee la ay deux heures yooyu noonu ba ak ay cinq heures et demi yooyu bu yaay ji ñëwaatee yooyu noonu digg temps boobu la waaw. Mm-hmm. mais bi nga xamante ni ñëw ngeen ba yëkkati dal bi ci kaw bébé bi ci yan anam ngeen fekkee bébé bi. waaw sonn na trop parce que mënoo ko gis sax kanam bi ñu nanguñu kenn gis ba dañ ko muur rek daw ak moom. parce que man biñ koy muur sax dara man ñun ñëpp ñu mënatuñ tee seen bopp kenn ku la ku fi taxaw muy mag muy ndaw mënoo tee sa bopp ki ku muur sax moo ñu ëpp euh, xolu muñ mais ñun mënuñu ko woon sax tiim naan ñu koy dee di ko yóbbu parce que instant boobu kenn mënatu tee sa bopp loolu daal xam naa xam naa ko ci. d'accord kon bébé bi euh, bi ngeen koy yëkkati boobu fekk na ñàkk na bakkanam. waaw fekk na ñàkk na bakkanam. d'accord dal bi ci ñaata nit la daanu. parce que ñaar ñoo nekkoon ci kaw. waaw mu wàcc bi muy wàccee nee nañu rama ak ñetti boy ñaari booy kenn ku jigéen la ñaari boy ah. ñaari boy dañoo ay blessure ak ku jigéen ki ak ki décédé kon mu nekk ñett ak ñaar ñi nekkoon ci kaw tëb. waaw ñi nga xamante ni ñooy mag ñi ñoom tamit seen gaañu gaañu yi garaawul noonu wala. non ab métti na nag. kay ku jigéen ki moom métti na trop waaw ku jigéen ki métti na trop ñaar ñu ndaw ñu ba léegi man mënu ma leen dugg xool boobu ba léegi aw ma temps duggaat foofu ndax sama xol dafa fees mais ku mag ki moom metti na trop tey rek évacué waat nañ ko yóbbaat nañ ko hôpital. d'accord euh, ci say kàddu dégg naa nga ne yéen ñi nga xamante ni yéen waa koñ bi foofu ngeen di yendu bu guddi ngeen soog a jóg. te gis nañ ne kër gi côté bi dafa xaw a màgget lool kon yàlla moo ci sotti. sutura yàlla moo ci sotti bu bóor a yàlla lii neen la ko mais lii moom yàlla moo ñu moo ko sot moo ñu si saafaral pour ñun parce que falañu la ñuy yendu fa waxtaan fa ñuy defee lépp maire bi sunu yaay la boroom kër gi mooy sunu yaay ñun waa koñ bi yëpp képp ku fi un an ba soixante ans fa ngay yendu fa ngay añee fa ngay defee lépp bu heure añ jotee doo xam ndax moo jur ku mu jur ak ku mu jurul kuy wax da ngay wax te dëgg rek te yàlla tax maire bi dee moo ko teree dugg àjjana nañu loolu la ñuy wax ñun suñu suñu xol chaque jour. moom anam mu jamono ji. moom dem na ci appartement am moom ñoom presque woon nañ ba pare seen bagage yëpp nañ ko pour après defar kër gi far ndogal ñëw bu ñëwee rek ñëw na kenn mënu ko téye loolu moo fi am. xale bi daa mel ni ah, xale ñëpp la woon ndax gis nañu bi nga xamante ne euh, rob bi mu ngi dem mu ngi mel ni ko euh, kilifa mooy mooy fi jóge. waaw loolu moom bu ko wér bu loolu amul sax sikki sàkk parce que xale bi moom bëggaabul la xaw ma lan la mais dafa soppee nit ñëpp la mag ak ndaw mhm, ñëpp nag mhm. mag ak ndaw mhm. ñëpp ko bëgg ñëpp ko sopp ban message ngay lancé jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoo di askan bi ndax gis nañu zaaru mbir yu mel nii saa bu ñëwee rek bu faatul bakkan tamit dina am ñoo xamante ni am nañ ci ay gaañu gaañu. waaw ah lu mu ci mën a wax de képp ku nekk si kër ci am mu am problème genre détail yu mel nii yi si ëpp ñenn yi moyen moo leen fay ñàkk moyen moo leen fay téye mais am na ñoo xamante ni kër gi dina am ñoo am moyen mais affaire de doomu baay yooyu la ñu war a jël ñu teg ko fële bàyyi àndi ku am da nga dimbali ñu si des mais tànk loolu dindi wuñ ko sunu bopp bi day wallay tallaahi du ñu jug si agent affaire yi parce que am na cosaan yoo xamante ni. bu fa téeméeri nit juddoo bu ñu bokk leen ndey ak baay sax war nañ jéem a di bokk ndey ak baay parce loolu noonu kese mooy tax kër di avancé moo àndee jox ki ñu dem kee bu àndee jox kee ñu dem mais bu dul loolu amul ci biir kër yi chaque jour di nga dégg genre détails yi parce que paa yi fi nekkoon yëpp dem nañ. secteur bi nga dëkk boo xoolee paa yi fa nekkoon yëpp dem nañ ñun ñoo fi des ñun doom yi ñun ñoo mën a dimbalante suñu biir mais affaire de doom baay yooyu la ñu a jël teg ko fële. d'accord mbir mi 14h la am ndax bu ñu woowee sapeur ñëw nañ ci heure bu ñu war a ñëw war a retard am na ci seen ko non retard bi jàggul ah bu ñu leen woowee ñëw nañ. waaw man de bu ma li ma si jot a fekkee ñoom ñu leen woowee ñëw nañ def nañ seen liggéey. waaw merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la jaale aussi te di la ci tiis bi dal ci seen kaw. waaw man tamit maa ngi leen di kontaan lu di leen remercier tax ngeen bàyyi seen yite ñëw ba fii moom waaw loolu tamit lu ci gën la sax pour yeneen détails yu mel nii di bañ a amati quoi dañuy yàqamti gis seen genre yi ba jëm leen expliquer pour ngeen lancer ko yéen tamit message ñëpp di ko yéeg ok merci. waaw sant nañ bu baax ñu ngi lay fay bu baax a baax. tur bi la. Ablaye laa tudd Ablaye. a jox waaw dañuy wax alhamdulilah rek nii la waroon demee lu mënta ñàkk la woon rek faw moom dañuy wax alhamdulilah rek ay dëkkandoo lañ suñu doom la luy xew xew na métti na rek mais dañuy sant rek xam ne noonu la waroon demee. ndax fekkee nga bi nga xamante ni eh, bâtiment bi mu ngi daanu maanaam dal bi. waaw fekkee ñu ko mais xam nañ feey quoi. parce que mën moom gaa ñi ngi añ mu jóg ne day jàngi arab moom moom xale la moom dafa bugg arxuraan. dem jàng alxuraan dem fekk fa oustaz bi fekk fa kenn mu génnaat di ñibbisi jaar suuf balcon bi daldi fekk fa fekk fa ñeneen tamit mais ñu génnee ñëpp fàtte woon ko moom bàyyi ñu ci xel fekk xeer bañ ko nëbb xamuñu si dara 14 heures ba 18 heures yaayam di ko laajte ah maamam ne nañ dem xool si xeer yi ñu dem xool fekk fa waaw. kon bi ngeen di génnee ñeneen yi da ngeen yaakaaroon ne jeex na kenn nekkaatul ci biir. waaw loolu lañ jàppoon dañoo jàppoon ni jeex na tàq kenn parce que. mënoo koon xalaat quoi mais nag suñu borom mooy dawal parce que xeer yi nii fi nit nekkee mënoo ko gis plus de 500 personnes jaar nañu police jaar nañu sapeur ñëpp gendarmerie ñëpp jëw nañ ba gis ñu xale ba dem ñu doog gis xale bi suñu borom la quoi yërmande la rek dañuy santaat alhamdulilah alhamdulilah. xale bi rek moom moo ci ñàkk bakkanam ñeneen ñi dafa amuñu seen gaañu gaañu yi garaawul. waaw ñeneen nag seen gaañu gaañu garaaw na garaawul waaw mun nañ ko gérer benn benn moor rek lañ ci am mais alhamdulilah baax na sant yàlla. ndax mbir yu mel nii de feral di am file ci Grand Yoff wala mu ngi fii soog a xew. non dama koy dégg rek di ko gis si kii mais maa ngi doog a dund live maa ngi koy doog dund di ko gis nii mu wóor ma ni lii mun naa ci wax fekkee naa ko gis naa ko. gis nañ ne immeuble bi tamit nekk na loo xamante ni lu màgget la ndax ñi si nekkoon jot ngeen a waxtaan ak ñoom wala. waaw mais loolu noonu loolu nag xam jamono moo tëddee ndoon te at àdduna jamono dafa métti. location dafa métti da ngay ñëw jamono ji koo war a génne fay la caution 4 mois dafa métti bu amee foo nekk nag fii ñu fi nekkoon famille la ñu fi nekkoon benn locataire te du locataire sax ndax du fay fayul fayewuñu ko parce dafa dem ba bokk si ñun c'est la famille kër gi moom suñu kër la sunu kër la quoi ñun ñëpp c'est la famille dafa waroon am rek am na sant nañ sëriñ bi. d'accord xale bi ñu si ñàkk si bakkanam si ay atam ci ñaata la war a toll boo ko xayma. am deux ans et demi deux ans et sama doom la moom amul solo waaw. lan ñu mën a wax ci moom ban genre xele la woon. yàlla dafa bind koo xamante ne day jaar àdduna mos rek ñun foofu lañ ko bàyyi fa jaar àdduna pour mos rek ñun yéem nañu bu yàgg balaa di di am waaw yéem nañu bu yàgg balaa di am ku ko xamul na xamoo ko. maanaam. doomu yàlla la waaw doomu yàlla la parce que ñu Touba doomu yàlla la noonu la waroon demee. mën nga ñu mooy doomu yàlla la. doomu yàlla ku am ngërëmal sunu borom. ku am ngërëmal sunu borom doomu yàlla. kon dafa nekk xale boo xamante ne xale bu teel a sotti la woon. kooku uruwaay nu la waaw dafa doon jaar daale dunya pour mos nii rek bu ko neexoon du ñëw man leen na ma ñu mu fekk fa dañ ko naan yow yéex nga ñëw. denc nañ ba pare amatul dara lu waroon xew la rek soxna si barki nañu ndax bi nga xamante ni uh, rob bi uh, maanaam ngi dem pour denc ko gis nañu mbooloo mi nga xamante ni moom moo topp ci uh, ca ginnaawam mu ngi mel ni kilifa goo xamante ni mu ngi dem. waaw moom laay wax noonu moo tax mooy leen doomu yàlla la moo tax mooy leen doom yàlla la façon décès bu nekk gis nañu fi gis nañu ñuy waaw mais bii ni mu demee nii mooy loolu barki démb ba démb ba tey nga doog si jot hôpital lépp dara jafewu fa nag lépp yomb na mais balaa nga siy jot mooy métti. nga xam ne suñu borom mooy dawal lii naal bàyyi alhamdulilah. waaw kay jëf ñu ngi leen di jaale bu baax a baax a di leen masawu te bokk ak yéen tiis bi aussi. ok alhamdulilah yéen tam sant nañ leen bu baax nii rek lu mu mënoon demee jaajëf.